waaye li doy waar ci sutante gi alaaji mm-hmm. daane ci buum ñu ne déet ni waay mu yor ab bebe di fanaanoog moom day toog ba guddi jóg di sang xale bi ci ndox mu sedd moo xam ni ay mbokkam nag alaaj li nu ragal mooy xëy benn jour mu faat ko léegi nag xaw ma nangu bébé bi mooy solution bi xaw moom daal day tëdd ba guddi ñëw fekk dëkkandoo yi sax di dóor bunt yi daal xam naa ni daal xam naa ni daal buur daal war naa jug. nii nag la ñuy def nag médecin après la mort. si mère. Hmm. ana mbokkam mi. waaw man dama ñëwoon euh, fii pour ut ndimbal rek ci sama benn tante parce que dafa feebar daal feebaru olof. xam naa ni feebar bi feebaru olof la parce que fañ nañ ko tubaab ba sonn wéru feebar bi mooy dafa. léegi sama tant bi maladie bi daf ko sonal torop dafa yàgg nag si yaram moom xam naa rab la bu ko dugg rek. Mm-hmm. léegi lu mu koy defal. Euh, dafay dafay daf koy guddi la koy tàqaleeg sagoom guddi ba guddi. Ah, par guddi daal la koy tàqaleeg sagoom bu guddee muy muy génn di tàqalikoog sagoom di ubbi bunt yi di fëgg di di def yoo xam ni te dafa yore bébé bu ndaw. ubbi bunt yi di fëgg mooy lan. di ubbi bunt yi di fëgg ja di kër jàmbur yi di fëgg kër jàmbur yi te dafa yore doom bu ndaw. problème bi daal foofu la nekk. fëgg kër jàmbur yi pour la. fëgg kër jàmbur di fëgg euh, néegu jàmbur yi. pour la di fëgg kenn xamul lan la xam naa rek mooy li ko dugg rek moo koy def loo yooyu. Mm-hmm. ñaan ya ñuy ñaan képp ku mën faj faju olof rek mu dimbali ñu ci te yàlla tax. léegi euh, moom euh, xale bi nag du ko def dara. xale bi du ko def dara da koy jël di ko sang. guddi gi day sang xale bi. di sang xale bi ci sedd bi. ci sedd bi ak ndox yi nga xam ne dañu taaja guddi gi te wóorul mën na ko sang dugal ko ci paan bi bës ko ci ko ci waa lépp parce que du ko tey naxa ko ci mu dee mm-hmm. loolu yépp a ngi ci te lépp olof la. mbaa du ko torturer di ko dóor ko sànnee yooyu. non du ko def yooyu da koy da koy guddi gi daal lay tàqali ko sagom rek. di mhm. def yooyu. di sang xale bi ci sedd bi. xale bi ci sedd bi génne bébé bi di ko sang ci sedd bi di ko dugal ci biir paan yi te mën na ko ci dugal wala mu tàngal ndox di ko sang mu mu dugal ko ci tàngal dal ndox bi sangee ko ko soode xale bi. Mhm. yooyu yëpp mi ngi ci. léegi moom li muy def xam na ko moom dina xam ne mooy def lii. du ko xam dafay tàqali ko sagom. Mhm. rab ko topp rek la. bu paree bu yeewoo bu yeewoo dañu ko koy wax bu yeewoo dañ koy wax ni ko da nga doon def lii da nga doon def lii da nga doon def lii fekk mhm. sagom teelu si na mhm. da koy dal daal di ko dal di ko dal sonal ko rek mhm. sonal ko rek sonal ko rek sonal ko rek ndoxu siti sonal ko tamit ci yaramam ñi ngi ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad képp ku mën euh, faju olof te nga wóor la ni mën nga ko jàppale nga jàppale ko faj ko ñu ñaanu ñu ndimbal utuñu ndimbal moom am na lu mu fajoo mais sëriñ bu ko faj la bëgg waaw am na lu mu fajoo am na lu mu fajoo parce que boo fekkee seet nga yàlla di nga kii kat lii moo ko jàpp lii moo ko jàpp dina nan ma jox lii ma faj ko hmm. ñu faj ko parce que jamono bi bu kenn ñaan ndimbal man man d'accorduma ci ñi ñi ñi ma ñaan ndimbal bi bokk hmm. parce que bu nekkee am nga dara rek boo ko génnee sax nga dem jaay ko nga dem faju hmm. sa yaram nga nekk nga nekkaat ni nga doonoon wala nga mel ni nga war a mel moo dàq ay milliards. mu depuis ñaata at mi ngi feebar bi. feebar bi dafa yàgg ci moom léegi mu am 10 ans ci moom. dix ans te même jëf yi lay jëf. waaw da koy faral di dikkaat rek. Hmm. léeg-léeg mu toog ay temps du ñëw léeg-léeg mu jékki-jékki rek ñëw ñëw jékki-jékki rek nekk ci yaram bi. Hmm. sonal ko sonal ko sonal ko. te guddi bu guddi lay guddi guddi lay manifester. soppi ko carrément. guddi la koy soppi changé ko. def ko def ko yoo xam ne di ko def loo yoo xam ne daal te dafa yore doom yore yore moom dafa nekk sax si néegu sëy day sëy. dafa nekk ci néegu sëy nekk nag nit ku baax. Hmm. nekk ku mën a def lu baax. nekk koo xam tey jii bu ñu la waxoon turam rek nga tudd yàlla ñu la waxoon fi mu bokk. ak maanaam nit koo xam ni famille bu baax la bokk. laaxi nekk nekk ko ci famille boo xam ne buñ la tuddalee turam rek nga nga nga joom nga waar. Mm. parce que xam nan turam ñi ko xam bëri na ñi ko mën a tudd bëri na fu mu ko tuddee ñu xam ko. waaye dafa ku ku ñu mën a dimbali rek. loolu daal mooy catam. waaw waaw cat bi daal a ngi noonu da ko topp nag xam naa cat bu ko topp la rek. am faju daal laa bëgg. la la moom daal ñu dimbali ñu rek ñu fajal ñu ko. léegi ñu ngi ñaan ku mën a faj sëñ Bassirou Ndiaye sax bu ñu mënee dimbali rek te mu xam ne mën na ci jàpp dama koy suivre dama koy seetaan. toog naa moom xam naa ko waxtaan naa ak moom suñu mënee jàppale te yàlla tax mu jàpp si te yàlla tax ñu yóbbu ko fa mu xoolal ñu yaramam xoolal ñu lan la sangatal ñu ko utalal ñu ko ay ñaan parce que ñaan man xam naa ne moom dina julli képp kuy buñ ko waxoon fuñ ko mënti wax ñu ni dëgg la dina julli dina jàng alxuraan dina jaamu yàlla dina dem juma dina dem xadara lépp lay def fu mu toll mi ngi sellal mi ngi yor kurus mais li ko dugg da koo dugg rek topp ko seytaane bi ko dugg da koo dugg rek topp ko ñoo ngi ñaan yàlla ci barki Seydina Muhammad ak yàlla mii di di di faj yàlla ñu jiital yàlla sunu borom mii di faj dana ci yàlla jàpp ñu saafara jàngoro bi ci yaramam saafaru ci barki Seydina Muhammad te ñoom ñëpp jàpp ci Mansour Diop Ahmed Aïdara yow mantulaay duma la fàtte mukk ndax dama lay seetaan di déglu di siibur di Ham labou yag, yag la ham genek nit kouba, pti senti bibele la dan nyom, nyom ham na ima. A, mkidey an tuka dey, tuka dey alay dey. Hmm. mom la xamut mom de waye dal <coughs> nani dal ku wéré di dal, comme niñ nono wax waji ju rayon jabar ji ca bën mm. dëkkati la sax mm. ñu ne ko rendi té ndaw si ëmb juroom ñent weer yi <coughs> ñu naan ba mu exercer yag na dafa feebar xaw nak lan côté ah. côté ficelle wa wa kay ficelle mbaa daan xom wa wa man kay képp ko xamanteni ni alaaji feebar nga ba bañ la génné ci classe yeeg légui matna at ak lu top wala ñaari at mm. koku lay soxna nak ngay fanaanoog moom. ba muy ëmb ba juróom-ñeenti weer ngeen baleen ci néeg. Hmm. alaaji dëgg yàlla.